merci beaucoup asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi balaa may wax ci bésu tey dama leen di indil message yu président Ousmane Sonko. mu ngi seetaan en direct lépp li xew fii. waaye nag xolam neexul te war xam lu tax nee na dafa bëgg képp koo xam ne am na lu tuuti loo ko dugal sa xol nga la waay bu taxaw fii na ko tàcc te ko yuux kan ngeen di topp kan ngeen di topp kon def leen li wax ndax mooy rafetal mbokk yi C'est un prisonnier errant qui vous parle aujourd'hui. ndax xam ngeen ne Macky Sall dafa décidé ne kenn du wax déet ci mim réew. moo mu jàpp lu ma 364 détenus politiques ñii mu tëj leen ñii mu isolé leen ñii mu door leen contrôle judiciaire. ñenn ñi mu delloo leen ci buumu jaam ñu mel ni man ngeen gis ko nii waaye lu metti yàggul ndax bi ñu sumb xeex bi xamoon na ne suñu bakkan mën nañ ko ci ñàkk donc tëj kaso du ci dara encore une fois na ñëpp pare bu ma nee na tabax ay kasoy kasoy kaso leneen li nga xam ne bëgg naa ci daaneel mooy mbokk yi kenn moodul bokk ndax warul bokk mënul bokk te du bokk mi président Macky Sall waaye ñëpp ñi fi des dinañu bokk ndax sénégalais yi ñoo war a tànnal seen bopp ki leen di jiite président Macky Sall mënu leen ko tànnal maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.